organise benn CRD tey waxtaan ci journée nationale de l'élevage boo xam ne bi euh, année euh, at mi ñu ngi koy defee à Kaolack euh, normalement le vingt 26 novembre la waroon a doon mais ba fii ñuy wax waxaguñ mais xëy na nag dootul yàgg dana nekk en tout cas novembre wala décembre kon noonu war nañu waxtaan tey naka la ñuy organiser wu pour dem ci journée bi mais seet aussi ki nga xam ne ren ràññee nañu ko ci li muy def at mi wax nañu ni ci wàllu transformation kon bu ñu nee transformation kon mun nañu wax ci sàmmkat yi moom jigéen ñeek moom kon loolu am nañu ay candidat yoo xam ni déposé nañu seen dossier bëgg doon lauréat ah loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo amee xam-xam technique ñoom ñooy examiner dossier boobu ba ñu seet kan moo ko yeyoo beneen bi aussi waxtaan nañu ci situation de la raison loolu nag gis nañu ci ay jafe-jafe yu bari mooy ci wàllu càcc jur gi loolu d'ailleurs dégg ngeen intervention ki nga xam ne moo jiite association lutte contre le vol de bétail mooy suñu frère Ndongo Fall wax na ci beneen bi aussi mooy jafe-jafe yi nga xam ne dafay faral di am diggante béykat ak sàmmkat loolu aussi tamit waxtaane nañu ko mais loolu terewul aussi gouverneur dana seet moom mi nga xam ne moom moo gën a placé parce que moo euh, moo boot ñëpp naka lay mën a def ba nit ñi mën a organiser ñu dëkk ci jàmm ak salaam parce que nag aussi noonu li ñu soxla rek mooy naka la ñuy def ba béykat ak sàmmkat dëkk ci jàmm ak salaam nga xam ne it danañu mën a muñalante parce que ñoom ñëpp ci àll bi la ñuy béyee ci àll bi la ñuy sàmmee et li des aussi mooy ci wàllu lekk jur gi loolu aussi dafay am période de xam ne bi période boobu lay jafe-jafe yooyu di faral di am mooy période de mois de mais jàpp juin juillet loolu nag dafa période boobu aussi xam naa bu demee ba lii passé après les élections aussi gouverneur dana organise ay CRD ñu waxtaan ci naka la ñuy def ba béykat ak sàmmkat mën a dëkk ci jàmm ak salaam e ñaareel bi aussi li nga xam ne dañu koy utilise parce que am na période boo xamante ne bi bu fekkee taw bi yeex na lool aussi dañuy soxla yenn garab yi pour rabale jur gi loolu nag balaa ñu ciy def dara war nañu ci waxtaan aussi ak eaux et forêts parce que am na texte yoo xam ne yi aussi dafay tere que nit ki jëfandikoo garab mais am na loo xam ne lii aussi bu ñu ko waxtaanee xëy na tolérance mën naa am Euh, waaw loolu noonu wax nañu ko waaye noonu liñ ciy def rek mooy dañuy waxtaan ak gouverneur mi nga xam ne moom mooy chef de l'exécutif régional fournir ko les informations et souhaits à partir de loolu nag moom danaa ko jël mu yónnee ko ci kaw ak i de droit ki nga xam ne moom moo war a fekkee ñu tracé foo xam ne fii sàmm yi foofu la ñuy nekk ak béykat yi fi ñuy nekk jërëjëf